salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi Gaydel Gaydel nag ku ko gis xam ne ni mu ngi ci TikTok bi di si euh, def message yu am solo yoo xam ne internet yi bëgg nañ ko lool ma bàyyi ko mu nuyu ak suñu internet yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu yéen waa Sénégal di siyaare képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel Sénégal di siyaare waa Sénégal gi yëpp jërë ngeen jëf. Mhm. Mm. alors Gaydel lan moo la ci TikTok su la ko doon laaj. waaw TikTok moom li ñu si dugal mën naa wax ne dañoo toogoon rek benn jour ñu am benn vidéo boo xam ne dañ ko jàllale woon yàlla dogal am ñu baree baree bari gis ci seen bopp ba ñu baree bari doon ñu wax naan lii de boo leen boo leen ko continuer mën naa doon njariñ lu baree baree bari ndax nit ñi ñu ngi koy commencé di bàyyi xel ndax biñ koy def sax dañ koo defoon noonu rek dañoo toog rek def ko noonu daal di dugal waaye luy jàll kenn xamu ko léegi nag ci lañ ci commencé concentré wu di ci dugal ba tey jii nii. Mhm. message bi booba ci benn xale laa doon wax ak yaayam. Mhm. waaw nga xam ne euh, xale bi day dafa euh, yaay ji dafa dem si benn kër di fa ñaan xoroom. Mhm. bi mu fa ñaanee ba pare xale bi ne ko lan moo tax ngay dem di ñaan ñi xorom ndax ñun lii nga leen di ñaan ñun am nañu ko. mu ne ko dama leen a bëgg ñaan ndax boo ëllëgee ñoom ñu mën a ñëw ci man di ma ñaan ndax tey jii nii bu nekkee ne du ma dem ci ñoom amaana ñoom li ñu soxla ci man mën nañ ko ba ñu ut si ci foofu daal lañ ko tënkoon ci lu mel noonu la waaw naa kii noonu waaye noonu lañ ko mën a tënkee. Euh, man sëñ Mbacke Lo laa tudd. Mm. Euh, ci commerce laay yëngu. waaw ba léegi damay wéy nag di ci nekk di liggéey. waaw ndax euh, maa ngi ci TikTok bi. maa ngi ci yeneen waaye it maa ngi ci liggéey bi la ma doon wéy di def laay def ba léegi nii waaw koy boole ñaar yëpp. fan maa ngi Touba nag maa ngi Touba. ah Touba nga mm, nekk waaw maa man fi mu nekk sax xaar naa fu ko weesu ndax xam naa ne carrément li may def donte que ne njariñ laa si jublu waaye lu ma man la. waaw te biir na ma ne mën naa egg foo xam ne tey dina gën a dina gën a kii waaw xaaroon naa xaron naa ci xaar xaar naa ci sax lu ko raw waaw ndax mooy li ma wax rek li ñuy def donte que ne ñun mënuñu dara lépp suñu boroom la waaye ko ci nekk rek am na lu la yàlla dénk loo xam ne xam nga ne lii boo ko utilisé wo mën naa mën naa indi njariñ noonu la demee am ñu ngi ci kii yu baree baree bari waaye yàlla baax na waaw dañuy ñaan mu gën a yokk lu mm. tax nga choisir di di di joxe ay message des fois nga joxe ay ñaan. Mm. jàng alxuraan. Mm. par exemple taw bi ba mu kiiwee yaa ngi xalaat baykat yi. maa ngi gis euh, vidéo boobu. donc lu tax nga choisir loolu d' que jeunes yi utiliser TikTok. Euh, fecc la cay way def wala kaf wala ree wala def affaire comédie. lu tax nga choisir yow lii damay jàppale Sénégalais yi. dañ mm-hmm. gën a ñaax. Mm-hmm. ku ci nekk ci ñun rek nga xam ko ak nga ñàkk koo xam am na lu tax suñu borom wàcce la fi. te damaa yaakaar ne suñ nekkee ci réew nekk ay ndaw am na loo xam ne moom moo ñu war a ñor te mooy fexe ba jariñ suñu réew am na vidéo boo xam ne maa ngi ko ciy wax waaw ni am ni mu amee ay yoo xam ne amuñu yéene jëriñ seen réew noonu la amee ay yoo xam ne am nañ yéene jëriñ seen réew te nekk ci nag di ci góorgóorlu man dama ko dama ko yàgg xeex donte que ne kàddu gi boobu jugagul waaye yu yu mel yu baree bari yoo xam ne day daw ci réew mi tey jii nii bu ma sañoon loolu yëpp dafay deñ te loolu noonu tey combat la boo xam ne dañ koy mane te dañuy wéy di ko mane waaw li tax nag ñu ñu choisir di def kàddu yooyu di def ñaan yi ba ci comme ni nga ko waxee la 30 juillet bii jàll nga xam ne gars yu baree baree bari doon nañ ma wax ngir ma jàllale message bu mel noonu waaye yàlla dogal nag ma jàllale ko ñu baree bari it apprécier ko bi ci kii ci ba yàlla dogal lii waaye wax rek duñ ci dara lépp suñu borom subhanahu wa taala la ndax ñun ay jaam lañ te mënuñu dara waaw waaye message bi li tax ñu koy jàllale bëgg ñëpp rek mën si jariñoo te euh, ndaw ñi xamaat ne indi wuñ ñu fi ngir yenn yi dañu fi indi ngir lu ñu fi wut ngir ëllëg loo xam ne dinañu mën a jariñ mm-hmm. te aussi loo xam ne tey képp bu ñu fi jógee tey képp ku ko gis dina xam ne lii nii njëriñ la loo xam ne nit mën na ci teg loxo ba ilaa yow mi diin waaw te ku nekk rek war na bàyyi xel ci sa image ndax bis dina ñëw ñu dugalaat ko waaw est-ce mës nga def benn vidéo boo xam ne nit gis naa ci sama bopp. du du jeex vidéo bu ma def. boo seetloo boo dee bàyyi nga xel TikTok bi su ma dugal des fois ma dugal vidéo nga gis commentaire am ko ne la dafa mel ne yow man ngay waxal wala dangaa dugg ci sama biir bi di wax ak man am na ñoo xam ne dañ dañ may woo fu nekk fu nekk lañ may woowee di di di joxe ay kàddu sant yoo xam ne man sama jëmm sax damay yéem. damay wax ne man nit ñi ci boppam sax ñoo may yokk jom ñooy tax chaque jour may fexe di gën a xalaat ngir lu ma gën a mën a yokkee mbir mi mu gën a jëm ca kanam ndax bu ñu ma am na ñoo xam dinaa ma ngir yàlla bul ko bàyyi loo mën a def ci message bi di ko jàllale na ngay wéy di ko jàllale moo tax ñooñu dañ may yokk jom dañ may yokk fulla dañuy tax yit li may def ma gën ko bëgg gën ci jàpp waaw mais ñu ngi ci kii nit ñi moom chaque jour daal ñu ngi fi chaque jour ñu woote chaque jour ñu envoyé message lépp lu ma dugal nit ñi ku ci nekk Euh, domaine bu mu mën a doon kenn gis naa ci sama bopp kenn gis naa sama bopp wax dëgg yàlla. est-ce nañu envoyé nag message yoo xam ne am TikTok commentaire yi kii day d'accord kii bañ a mm-hmm. d'accord. Mm-hmm. est-ce gis yoo xam ne mm-hmm. man daanaka sa boo xoolee sama vidéo ñu koy apprécier moo ëpp mu moo ëpp. wala su dee am na ñoo xam ne tey apprécier wuñ ko ci yeneen ñi koy dugal lay doon. comme message bi des fois nga gis Instagram am ñu ko dugal wala nga gis TikTok am ñeneen ñu ko dugal wala nga gis ci YouTube am ñeneen ñu ko dugal man nga cee gis benn commentaire boo xam ne dina xaw a doy waar waaye loolu mënta ñàkk mook àdduna ñoo ànd man fi mu ne ñi nga xam ne dañuy wax euh, ci ci ci ci ci ci lu négatif man duma leen diglu man bàyyiwuma xel loolu noonu parce que maa ngi koy wax ma ne la bu dee am na fukk yoo xam ne bañ nañ la te defoo leen dara am na fukk yi la bëgg te defaloo leen dara kon ñi nga xam ne bëgg nañ la te yàlla rek tax chaque jour ñuy wax ci yow lu baax deel xool ci ñoom te nga bañ a gestu ñi nga xam ne dañuy wax ab safaan waaw côté boobu doon ci kii bu baax a baax a baax am am daal. am nga abonné abonné yu bëri nañu plus de 1600 160 000 abonnés. waaw 2 mhm. millions de j'aime. Mhm. yooyu est-ce que da ngeen ko yow da ciy bàyyi xel nit ñi di di di abonné ak mhm. yooyu noonu. waaw waaw ñaata abonné ngay ngay jot par jour. Mhm. day bari xam nga des fois tey mën ngaa dugal vidéo boo xam ne da ngay gis abone yi day jékki-jékki rek di dem. comme par exemple par exemple vidéo bi ma dugal ci kii bi ñaan gi vingt trente souliers bi booba mi ngi ci woon cent cinquante mille mais moom moo ko yóbbu cent soixante mille. Mm-hmm. kon euh, des nga dugal vidéo boo xam ne da ngay gis gars yi dañuy abonné abonné bu gaaw boo xam ne nii rek la ñuy la ñuy tegaloo waaw loolu moom chaque jour bi abonné day bari loolu bu dee ci côté TikTok bi mu côté TikTok bi day bari loolu moom day bari mm-hmm. waaw. j'aime yi it waaw non TikTok moom fayagul. fayagul waaw TikTok moom fayagul. Mhm. Mm-hmm. mais est-ce que foofu nga bëgg a yem nag wax dëgg yàlla yem TikTok rek di fa envoyer message yi wala mm-hmm. bëgg nga gën ko élargir am sa chaîne YouTube. Mm-hmm. wala am leneen loo xam ne di nga ci mën a am tuuti revenu. waaw waaw waaw mm, duñ ko yemale rek TikTok. waaw ndax yu bëree bëree bëri ñu ngi ciy xalaat te ñu ngi ciy waxtaanal ak ñu ngi ciy waxtaanal ak ay ay ay ay ay ay ay ay borom xam-xam ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci côté beneen bi. Euh, message bi mënta yem rek TikTok donte que ne ñu ngi ko fay jàllale nit ñaa ngi koy bàyyi xel waaw waaye bëgg nañ mu gën a yaatu ci YouTube bi bëgg nañ mu gën a yaatu mu gën a yaatu mu gën a yaatu ba nit ñi gën a dégg kàddu gi ba nit ñi xam carrément lan la gaydel bëgg daal maanaam lan mooy kii bu gaydel ñu ñu ngi ciy kii bu baax a baax a baax incha allah te lépp bu sotti nañ ko nañ ci xam daal. ñu ma remarqué tamit lenn si si TikTok yi mooy euh, Touba nga dëkk. Mhm. sa tur murit nga. mais du ñu gis affaire tarixa bien vrai que TikTok bi des fois tarixa bi bind kenn non non lii du kii mm. werante bi dafa bëri. Mm. mais yow nga ñëw rek. Mm-hmm. indi say message bi am solo ñëpp apprécier nan nga gisee loolu. Mm-hmm. waaw xam nga tey. est-ce côté boobu tamit xaw a sensibiliser un peu pour booleeg tarixa yi ñu nekk. benn. am naa benn vidéo bu ma ci dugal sax waaye booba xaw naa yàgg booba lii xewagul. Mm. may xamal diggante maam El Hadj Malick ak Serigne Touba li ñu bokk. waaw nga xam ne yooyu dafa am solo tey. man mën naa nekk murit kee nekk tijaan te du yàq dara ci suñu diggante ku ci nekk rek fa nga nekk njariñ nga fa gis moo tax nga nekk fa boo fa gisul woon njariñ jóge nga fa waaw ki gëm sëñ Touba sëriñ Touba na ko gëm ki gëm maam Alaaji Maalik gëm ko ki gëm Baay Ñas gëm ko du yàq dara ko ci nekk ci la nga gëm waaw xam nga dafa dafa naqari nit nit nit nit di dugg ci gëm-gëmu doomu aadama dafa tag doo gëm-gëm dafa dafa dafa dafa nekk ci biir xol waaw nit ki mënul juddu ci dara gëm ko nga bëgg ñëw nga dugal nga dugal ci loo xam ne day xaw a doy waar des fois damay wax ne man dama koy ñaan chaque jour ma ne nañu dimbale rek ngir yàlla te jii warul am ab tijaan taxaw di saaga am murit wala am murit taxaw di saaga ab tijaan dafa ñaaw mhm. ci mag ñoo xam ne lenn moo leen fi indi woon muy liggéey lislaam lenn moo fi indi woon muy jëriñ muy jëriñ Sénégal mhm. ñoom nag njëriñ loolu ñu fi bàyyi nañ ko fexee yëkkati fexe ba ñëpp man ko man cee teg seen bët waaye bu ñu nangu mukk mukk mukk muy wàccee ci ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi mujj mhm. te boo xoolee sëni léegi ni ñuy doxalee nga xam ne da gis ku dugal dara rek ñëpp dagg saaga te loo xam ne daanaka day xaw a doy ku ci nekk rek nangul ko gëm-gëmam nangul lim doon yow it nga xam ne euh, yow fa nga nekk ma lay lay jariñ ëllëg yowmal xiyaam nag ku ci nekk ka nga gëmoon euh, ñu xam rek yàlla baax na. <laughs> est yow pare nga ci pour dox ci bu ngeen a sensibiliser ci côté boobu. wa waaw waaw da dañ ciy kii bu baax a baax a baax yu mel noonu ñu ngi ciy xalaat waaw. fexe fexe ba gën a sensibiliser ndaw ñi ci côté tariixa yi. Mm-hmm. waaw waaw côté xam nga tey suñu nee gaydel man sëñ Mbàkke man sëñ Mbàkke ku ne xam ne man murit laa. man dama ci murit laa judd samay waajur judd ci murit. Mm-hmm. waaw na loo xam ne. su ma su ma doon liggéeyal yàlla di xëy di di jaamu yàlla ba guddi may fanaane jaam yàlla mënu ma koo fay suñu borom muy boole gi ma boole ci njabootu Serigne Touba. waaw te nag dañoo fier ci doon giñ doon taalibe Serigne Touba te jomm nañu sax nag doon taalibe Serigne Touba kon ñun amuñu lu gën a kawe doon taalibe Serigne Touba waaye li may li may wax ci loolu mooy man tey ñu baree bari sax am na ñoo xam ne dañ naan ma yow ñaseen nga am na ñoo xam ne ñu baree bari dañ naan ma xanaa Kaolack nga dëkk taalibe Baay nga waaw am ñoo xam ne dañ naan ma yow Euh, tiwaawoon nga dëkk ku ci nekk am ñoom ñu bari dañ ma naan tijaan nga ñu naan mooy am ñoo xam sax xamuñu lu ma doon mm-hmm. parce que côté boobu noonu man doxuma ci waaw ci li ma gën a kii mooy fexe ba ba nga xam ne tey li may wax message bi may wax sénégalais yëpp ku ci nekk di nga ci mën a gis sa bopp parce que man waxuma ak murit waxuma ak tijaan waxuma ak xaadir waxuma ak laay waxuma ak ñeseen ba ba ci ñëpp laay waxal chrétiens yeeg ñëpp ku ci nekk rek sama message boo ko jotee bëgg naa mu am loo xam ne dina ko def ci yow te mooy am njariñ te ñu ngi liggéey baax a baax fexe ba xale yi gone yi gën a xam naka la ñuy réseaux sociaux waaye naka la ñuy xamee nan la ñuy mën a euh, jariñoo ci suñu mag ñi waaw te bañ cee loru daal dëgg la euh, abonné yi bëri na yi bëri na mais duñuy gis mooy ñiy gën a def kii loolu ñooñu gën a. Mm. may côté boobu waaw loolu moom fi mu ne jamono ji moo ni toll. waaw nit kuy def ab safaan ak nit kuy def lu baax mun ñooyam waaw ndax boo xoolee tey da gis sax koo xam ne tey su doon wax dëgg. nga mu gis loo xam ne ab safaan la mu di ko wax dañ naan ko yow loolu sa yoon nekku ci mm. maanaam réew mi wax fi safaan moo fi gën wax fi dëgg waaw ndax boo waxee dëgg ñëpp dañuy jël dëgg googu teg ci seen tànk jël fen wi ne fen woowu mooy ne mooy li nekk dëgg waaw ba tax ne kenn ñemeetut a wax dëgg ngir fen wi yuñ jël teg ko ci kaw dëgg gi te loolu noonu ndaw ñi ci boppam ñoo ci jiitu sama moroom yi tey sama bopp laa ci jiital waaw xamatuñ li ñuy jariñ jàpp nañ ne li ñuy lor moom moo nekk li ñuy jariñ waaw xalaatatuñ ne tey war nañoo mën a am maanaam jariñ loo xam ne ëllëg dinañ ko mën a jariñ suñu réew lenn mooy suñu yitte jàpp nañ ne mbon gi mbon gi nekk ci réew mi jàpp nañ ne kuy tedd rek ci mbon googu nga mën a teddee ba tax mbon googu lañ jël yëkkati ko favoriser ko teg ko ca kaw jàpp ne képp ku mën a képp kuy jariñu rek mbon googu moo la mën a jariñ mhm. ba tax nit ñi buñ gisee ab safaan sax ci la ñuy gën a mën a a mën a vie ka ki nga xam ne dafay wax quarante quarante mille sem nangam ak nangam te loolu noonu amaana ci jamono yee jàll mënoon naa bañ a am mais ginnaaw ñu ngi koy def nit ñi ñu ciy gis suñu bopp nit ñu baree bari di wax ne amoon nañ yoon buñ nekkoon waaye yaa ñu a def lii waaye bi ma sa la rek ndax ñi baax ngi baax ba tey waaw wallaahi <laughs> mi ngi hmm. noonu alors euh, ñëw ci Touba dëkk nga fa Covid bi nan la fa demee foofu feebar bi est-ce que euh, ba tey ga euh, màggal baa ngi ñëw nan ngeen koy dundee instant bi foofu waaw sant yàlla rek. waa ñàkku nga. Ah. wala ñàkkoo nga <laughs> da ragal. <laughs> damaa ragal ñàkk yi. da <laughs> ba di ci moroom. sant doy na waar sant yàlla rek. waaw màggal gi moom ñu ngi koy waaj bu baaxa baax comme lii sëriñ bi wax rek duñ ci dool dara bis la boo xam ne sëriñ Touba ci boppam moo wax ñu santale ñu santale ko ko borom ndigalul sëriñ Touba la. kon ñun doon bu dee ñu ay taalibe Serigne Touba lañ li ñu war mooy bu bis ba ñëwee ñu santale ko boroomam ñu ngi koy waajal bu baax a baax comme nañ ko daan waajalee ci at ya jàll. <laughs> dama ñàkk ji nag. waaw balaa màggal bi de. bu soobee yàlla <laughs> incha allah incha tàggatoo ak ñi lay suivre surtout ñu lay suivre ñoo xam ne saa ñu la gisee ñu ngi bëgg say vidéo di ko partager. Hmm. Euh, lan nga leen di wax. waaw xanaa maa ngi leen di sant rek di leen gërëm waaye balaa balaa boobu. dama leen di jàllaleel benn message rek mhm. ñu ñu ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax ak fi jamono ji toll ñu gën a góorlu si jaamu yàlla ndax lu baree baree bari moo la ci mën a génnee waaw ndax ndaw li lii fi yëg rek seytaane mi nga koy tënk lu baree baree bari du ko mën a xam te du ko mën a jëf mhm. bu loolu weesoo ñu fexe fexe ba am am ay ambition gëm-gëm ci suñu réew gëm ne ñun ndaw ñi ñoo mën a jëriñ réew mi te ñoo ko mën a avancer loolu te fi fi ñu bëgg mu egg fa ñun ñoo ko fa mën a eggale ndax bu ñu tënkoo ci suñu njiitu réew yi rek daanaka lu baree baree baree bari du mën a du mën a dem ndax dañoo ñoom dañoo xas ba tënku ci ñoo xam ne ñoom pour ñu tinki leen day jafe léegi nag ñu ñuy nekk ci biir réew mi te nekk ay ndaw ñu ñoo mën a tinki réew mi waaw ndax euh, bu ñu xoolee tey Euh, bu doon ne tey bu dee ne njiitu réew Afrique yi dañoo dem génn ci réew mi jëlee ay ay produits yu mel noonu indi ko fii nii bu dee tey doomi réew mi dañuy dem ci dëndee ci seeni doomi réew boobaal lu baree bari dina mën a sensé mm-hmm. waaye Sénégal lu ci baree baree bari soxorante gi ak iñaanante gi dafay bari nañu boole xol li te ànd te xam ne ñun kase ñoo moom gaal gi te ñoo ko mën a suuxat mm-hmm. fi mu nekk nii ñun ñoo ko fa mën a génnee nañu góorlu te xam ne ay ndaw lañ te suñu réew soxla nañu waaw maa ngi koy lancé bu baax a baax di sant képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel émission bi di leen sant yéen waa Sénégal di sant waa Sénégal yëpp képp koo xam ne yaa ngi bàyyi yaa ngi bàyyi xel Gaydel rek su ma mënoon dem ba ci yow tàllal la loxo jox la ko siyaar la dama koy def ndax gis naa ne gis naa seen taxawaay te rafetlu naa ko maa ngi sant sénégalais yëpp di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen wax it ñuy bàyyi xel maanaam comme des fois fausse comme faux comme ti ak yu mel noonu ndax ñu bëree bëri dañ naan ma wax ci mën naa leen incha allah dinaa wax waaye nañ koy YouTube bi na ci a ne ñoom ñëpp nañ dem abonné ci mhm. ñu ngi ci waajal ay mbir bu sooba yàlla ndax bëgg nañ mbir mi gën a jéggi TikTok TikTok waaw dem ba sénégalais yëpp gën koo ràññee gën koo xam xam ne daal Gaydel mënewul TikTok bi kase waaye am na yeneen mbir yoo xam ne mëne na ko incha allah. ku la bëgg a suivre nan lay def. Euh, TikTok bi nan la tudd. Gaydel waaw bu bu bu bu bu demee ci TikTok bi bu bindee Gaydel 2 rek. Mhm. dina gis Gaydel bu demee ci Instagram bi wala YouTube bi. waaw incha allahu rabbi Instagram tamit. waaw waaw maa ngi Gaydel 2 la. waaw Gaydel 2. Gaydel 2 bu soobee yàlla incha allah ñu lay jaajëfal. waaw jërëjëf ci dalal la. waaw jërëjëf tamit ko suivre xool ba xam ne yu ñu ci mën a partagé rek ñu ko bokk ko. incha allah gars yi. jërëjëf waay xam bi dangeen ñu dalal. bu soobee yàlla incha ñu ngi leen di xaar. jërëjëf jërëjëf